jërëjëf Seexuna histoire bi de neex na lool teyit am na solo bëgg naa nga leeral ma mam maaram bi mu dajee ak dammeel naka la mujjee. jërëjëf Aysa ci teewlu gi ak bàyyi xel gi ngay bàyyi xel histoire bi mam maaram nag bi mu dajee ak dammeel ñoo ngi dajee ñoom ñaar ci xurwa bañ fa dajee dammeel daal di nuyu mam maaram daal di jàmm santeek moom laaj ko ana lan moo nekkoon sa tànk ana lan moo la yëkkati woon mam maaram daal di koy wax ne ko man de ñaari mbir moo ma yëkkati woon ñaari mbir mbir bu njëkk bi mooy. damaa ñëwoon ngir jaale ji ki nga xam ne mooy sama mbokkum sëriñ daara di Malamine saar nga xam ne ñoo wëlërante man ak moom beneen mbir mi nag moom mooy sëriñ daara yi nga xam ne jàpp nga leen ci xare bi comme jàmm nga bàyyi leen ndax xare rek moo doxoon sa diggante ak ñoom maanaam li nga xam ne mooy jihaad doxul seen diggante xare rek moo dox seen diggante kon amuloo droit ngir jàpp leen bu doon jeexaat nag mën nga leen a jàpp waaye xare la moo tax sëriñ daara yépp mën nga leen a bàyyi loolu daal lay sàkku ci yow bi mu waxee loolu damel tamit daal di kontaan daal di rafetlu kàddu yi ni ko yow boo gisee ma wóolu la mooy dama lay fàttali kóllëre yu dox sama diggante ak yow ak mbokk gi ndax Amari Ja mi jur Jeele Ja sa maam moom lañ ma tuddee kon yow jëflante bu rafet rek laa sàkku di ko jëflante ak yow ci noonu Damel daal di accepté loolu nga xam ne maam Maaram sàkku na ko ci moom daal di bàyyi jaam yi nga xam ne jàppoon na leen ba noppi di koy yebal ci jaraafam yi nga xam ne ay jaamam ña nga fa woon ci ay sëriñ daara mu dem ci jaraaf yooyu ngir ñoom itamit ñu libéré jaam yi nga xam ne jàpp nañ leen ci ay sëriñ daara ay borom xam ci nonu nak mam maram dal di war fasam di wër digënté kadior ak bawal ngir bëpp jara bo xamné ne na ci sëriñ daara yi mu ko su fekkee mënu ko bàyyi tam mom mu jënd ko manam fay alal dal di koy gorel ngir mu ñu bàyyi ko ginnaaw bi mam maram doxé lool ba nopi nak dal di wat fa nga xamné ne ca damel amri ngone dal di sàkk ci mom ngir mu mëna delu wat jolof ci nonu damel dal di kontaan ci mom loolu ne ko nag xam bi ak sa xalaat bu rafet bi bëggoon naa nga des ci dëkk bii di bawal nga tuxu jugee fa nga xam ne mooy kajoor mooy jolof ñëw fi nga xam ne mooy bawal ngir nga dëkk ak man ndax bëggoon naa soo ñëwee ànd ak sa njaboot ma def la sëriñ nga nekk sëriñ fii ci bawal bi mu waxee loolu maam maaram daal di gàntal ne ko man fi ma toll nii mënatumaa dëkk fenn fu dul jolof kon loolu moom du mën a nekk waaye nag sama njabootam yi ni tànn ci ku la neex ma bàyyi loxo fi ndax ñoom ñooy man man maay ñoom ci noonu damel dal di tan doomu mamaram ji nga xamne moy Ibrahima awanyang waye bim bi Ibrahima awanyang mamaram dafa gantal ne ko sëñ Ibrahima awanyang mi nak moy samay loxo te itamit dafa takko ak man ci dima dimbalé ci liggéey yi may liggéey kon du mom duma bayi. ko bayé kon ni may def moy dama lay jox sama taw bi nga xamne moy Amadou Farimata mom mu nek ak yow ci nonu mamaram dal di fay bayyi Amadou Farimata ab tawam ci nonu nak mamaram dal di ginaaw bi mamaram Damel tamit daal di ànd ak ki nga xam ne mooy Amadou Farimata daal di koy teral loolu am contentement ci bàyyi gi nga xam ne maam Maaram bàyyi na ko foofu di bawal ci noonu Damel daal di woolu ki nga xam ne moom la ñuy wax Basin laa moom mooy jaraaf bi nga xam ne moo jiite woon dëkk bi ñuy wax laa laa nag mooy nekkoon saate ci penku mbàkke bi saate la nekkoon ci penku mbàkke bi Basin laa bi mu ñëwee mu boole ko ak ki nga xam ne mooy Amadou Farimata ngir mu daggal ko pàkk ngir mu daggal ko ab suuf mu dëkk fi nga xam ne mooy bawal moom ak ñi mu àndal ci noonu Basinla daal di ànd ak ki nga xam ne mooy amadu fari mata ngir ñu dem mu wutal ko fi nga xam ne mooy ay pàkk ca bawal mu mën faa dëkk moom ak njabootam. ci noonu ñoom ñaaru ñu ànd daal di fanaan ci dëkkam boobu di laa bi ñu xëyee Basinla daal di ànd ak ki nga xam ne mooy amadu fari Farimata ñu war seeni fas dem ci dëkk bu ñuy wax Yaraxlaan ci bawal bi ñu ñëwee dëkk boobu di Yaraxlaan daal di fay fekk ku ñuy wax Serigne Yaraxlaan mi jiite woon dëkk boobu Serigne Yaraxlaan ak Basinla ñu daal di waxtaan. mbasin la xamal ko ne ko damel dafa bëgg ki nga xamne moy amadou farimata mi juggé juggé jollof jolof di doomu maram ñu daggal ko fi pak bu yaatu ngir mu sanc fi ci nonu ñom ñaar ñu di ci lolu daggal señ amadou farimata ap pak bu yaatu ci suufus bawal ci dekk ci wetu dekk bobu nga xamne moy mooy yaraxlaan dëkk boobu nag biñ ko sancé ci bis bobu ñu tuddé ko señ amadou farimata daal di dekk fofu bi mu fa dëkkee nag ànd nag mbooloo mu takk loolu mbooloo bi nag yaatu nañ lool te it bari nañ wax nañ ni bis boobu rek sanc nañ ci lu tolloog juróom-ñaar fukki kër maanaam ci dëkk boobu nga xam ne mooy Mbàkke Yaraxlaan di dëkku sëñ Amadou Farimata bis boobu rek njaboot gi mu àndaloon moom sanc nañ ci lu tolloog juróom fukki kër ndax bari gu ñu bari mbooloo mu takku daal di nekk ca dëkk boobu loolu nag moo ngi nekkoon ci atub junne ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci milaad yi Manam 1794 Amadou Fadimata nak nek na ci dekk bobu di Mbàkke Yaraxlaan di fa dundu di bay ak di jangale alquran comme niko ay bayam ak ay mamam dan defé nek na fa ab diir bi fa nek ab diir ba am fa lu wéré at mom Amadou Fadimata dal di genn aduna ginnaaw bu mu genné aduna nak nit ñi dal di dem ci woy juram mi nga xamne ne mam maram ci Jolof dal di koy xamal ne ko Amadou Fadimata genn aduna jamono yoy nak mam maram mo ngi mage lool ginnaaw bi ndeysaan maam Maram daal di fay yebalaat beneen doomam bi ñuy wax Ibrahima Awa ngir mu ñëw foofu ca dëkk ba ngir wuutu ki nga xam ne mooy amadu Farimata Ibrahima Awa Ñang tamit daal di ñëw ca dëkk ba nekk fa moom itam comme na fa Amadou Farimata nekkee woon di jàngale alxuraan ak di bay ba am fa lu tolloog fanweeri at ak ñett moom itamit mu daal di génn àdduna Ibrahima Awa nag moom bi muy génn àdduna fekkoon na lu ko jiitu woon way juram maam Maharam génn na bu yàgg ba ñu denc ko ci dëkkam boobu di Mbàkke saa ñànk ca Jolof naka noonu itam Thierno Farimata mi nga xam ne moo bokk ak ki nga xam ne mooy Amadou Farimata moo fa nekkoon ñoo bokk yaay moom Thierno Farimata moom itam génn àdduna ba ñu denc ko saa ñànka ca dëkku baayam boobu ki nga xam ne itam mooy Ahmadou Soxna Bousso ak Sayar Soxna Bousso ñoom itam génn àdduna ba ñu denc leen baari ba nga xam ne doomu maam maaram yëpp jeex nañ ba kenn rek moo ci des muy maam Balla di caat mi maam Balla nag moom jamono yooyu fekkoon na moo ngi jàngee alxuraan ci daara ju ñuy wax sëriñ Matar Kumba Njaay fekkon na jamono yoyu mo ngi nekkon ci daara joju don fa jang ba fay jang itam mang fa fekkante ku ñuy wax serigne musobe di ay mbokk ñom ñaar ñu wëllarante lolu serigne musobe nak mom moy papay mam jaara manam mom moy wayjuru soxna jaara ci nonu nak ñu daldi di mam Balla ngir mu ñew fi nga xamne moy bawal comme ay frère am nalaw nañ ngir mom mu ñu tuxu fofu daldi di wutu ay frère ci njabot gi mam Balla nak bi mu ñewé daldi jubali fi ñuy wax Sadio dem ci mbokkam mi nga xam ne doomu ndeyam la ñu koy wax Mame Bara Sadio di dem foofu daal di fay nekk Mame Bara Sadio nag waajuram ak waajuru Mame Balla ñoo bokk ndey ak baay ay doomu ndey bi nga xamee ne Mame Balla ñëw na foofu ca Sadio nekk fa am fa lu tolloog at waajuram daal di génn àdduna maanaam yaayam daal di génn àdduna foofa ca Sadio ñu denc ko foofa ginnaaw bi nag la ko demee woolu ngir mu ñëw ci Mbàkke daal di fay sànci ci noonu Mame Balla daal di ñëw Mbàkke daal di wàcc ci garabu xewar gu mag gu nekkoon foofu daal di fay sànci ñu koy woowee mbakki xewar Mame nag nekk na mbakki xewar googu lu tollook ñaar fukki at ak juróom-ñett ñaar fukki at ak juróom-ñett yooyu ci jàngale ak yar ak ak bay comme ni ko ay baayam ak ay maamam daan defee noonu la ko daan defee di fa dund dund diina dund bu sell di yar ak njabootam ci diina Mame nag amoon na ñetti doom taawam moo ngi tuddoon Serigne Abdou Khadir ki ci toppoon moo ngi tuddoon Mamor Anta Sali ki ci toppoon tamit moo ngi tuddoon Serigne Mbacké ñoom ñett ñooñu la amoon ci doom maam nag bi mu nekkee ci dëkk boobu nga xam ne mooy Mbàkke Xewar dafa dund dundub diina ak dundub lislaam baam fa ab diir lu tolloog ñaar fukki at ak juróom-ñett benn bis doomam jooju nga xam ne mooy taaw bi sëñ Abdou Khadir di tukki maanaam di voyage yi bi muy voyage yi ba daal di romb dëkk boobu nga xam ne mooy laa cedda yu nekkoon laal daal di koy dogaale agressé ko daal di koy rey ndax jàppoon ci moom alal jum yoroon te fekk yoru ko ñu agressé ko daal di koy rey ray gogu ñu ko nak dal li merlo mam balla mer gu tar mu am ci titu xol ci non la gàddaayee dekk bobu nga xamne moy mooy xewar dal di dem ci dekk bu wax ngay dal di fay sanc ci nonu mam balla dal di nek fofu nga xamne moy ngay ab dir di fa dundu di ak di yar comme nim ko baxo am fa lu tollok ñaari at ci nonu ay peul dal di ko fay fekk dal di koy ray ginaaw buñ ko rayé nak mom mam balla ñaari domam rek ñofi dess muy Mamor Anta ak sëriñ Mbàkke Kajoor Maamoor Anta Sali nag moom nekkoon na boroom xam-xam bu mag taxoon na itam ñu bari nawoon ko ci xam-xam bu bari ci jamonoom moom Maamoor Anta Sali wax nañ ne xam-xam bu bari bi mu yoroon ay maamaam sax yoruñ ko woon xam-xamam nag mu ngi ko jëlee woon ci dem jàngi maanaam dem wuti ji xam-xam ci dëkk yi fu nekk mu dem fa ci daara yu mag yi ngir sàkku li nga xam ne mooy xam-xam demoon na njaambur ci dëkk bu ñuy wax kokki ngir sàkku foofa xam-xam ci borom xam bu mag bu fa nekkoon bu ñuy wax Masamba Anta Ceebu Mamour Anta nag bi mu demee foofu sàkku na fa xam-xam mu jàng fa la nga xam ne muy naxwu muy xam-xamu grammaire ci wàllu araab ginnaaw bi itam ba mu fa jógee la dem fu ñuy wax Saalum ci borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Mouhamadou Sall borom xam-xam bu siiw la woon moom itam nekkoon ca dëkk bu ñuy wax Bamba ca Saalum mu sàkku foofa li nga xam ne mooy xam-xam ci xam foofu la ko jëlee mooy xam-xamu tawxiid ak fiqu ak bépp xam-xam boo xam ne ñeen na wàllu lislaam ci ay atté ak ci yu mel nonu ci mohammedou Sall momu la ko jëlee wax Bamba mohammedou Sall momu nak borom xam-xam yépp nangulon nañ ko ak wilayam ak sel gu mu sel ak ragal gu mu ragal yalla taxon na mamour Anta Sali lu bari ci xam-xam fofu la ko sàkk won ci mohammedou Sall momu wax nañ na sax mohammedou Sall mom mom la tuddé won ku tadd ki khadim Rasul ndax dekkam bobu di Bamba mom lañuy dakantalé Serigne Touba muy mohammedou Bamba ginaaw bi nak la joggé fofu ci salum ngir sañ ci dekkam bi nga xamné moy Bawal Mamour Anta Sali nag bi mu ñëwee Mbàkke Bawol nekk na fa nekk nu rafet yàlla def na barke bi nga xamee ne ay maamu amoon na ko tàmbalee ko ci alaaji Cheikh Mbàkke mam maaram ba ci mam la lépp daal di dajaloo ñëw ci moom mu am barke bu yaatu xam-xam bu bari bi mu yoroon ak sell gu mu selloon taxoon na mbooloo mu takku du jógee fu nekk ci àdduna bi di ñëw ci moom ngir de sàkku si xam-xam taxoon na itam buuri àdduna yi respecté woon ko loolu ndax mu dëggu ak maandu gu mu ay waxam taxoon na itam ñi nga xam ne ñooy ceddo yi respect ko bàyyi ko xel jox ko cieur Mamour Anta Sali nek nek nu sel yalla defal ko xewal ak tawfiq ci dekk bobu nga xamne moy mbacke Bawal. ba ci sëriñam yu ko daan jangal sax seen doom daan nañ ñew ci moom di sàkku xam-xam ndax xam-xam bu sel ta bari ku ci melni Masamba Marema doomu Masamba Anta ciebu ca kokki taxone itam mbolo mu takku di ñew ci mom di sàkku xam-xam yalla defal ko barke ak ak fatu ci li nga xamne moy xam-xam ak sel gu mu selon ci jafé gi mu koy jafé ca Mbàkke Bawol googu fa la Cheikhul Khadim gane àdduna Cheikhul Khadim mooy gane àdduna ci atum junne ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ci gàddaay gi maanaam 1270. way juróomu jigéen maanaam yaayam moo ngi doon Soxna Jaara Buso Soxna Jaara Buso moomu nag way juróom moo ngi doon maam Astawaalo moo ngi dëkkoon Naawel maam Soxna Jaara moomu bi muy am fukki at ak juróom ci la mokkal alxuraan ci loxo loxoy woy juróom boobu maam Astawaalo ginnaaw bi itam ci la bind kaamil at moomu mu bindee kaamil ba àggal ci la ñëw ci kër Mamor Anta Sali maam Soxna Jaara nag meloon nañ ko ay melal yu rafet ndax moom dafa nekkoon koo xam ne ay jëfam ak ay jikkoom dafa rafetoon loolu ku sàmm woon la digganteem ak boromam waaye ku sàmm woon la digganteem ak sëriñam boobu di Mamor Anta Sali maam Soxna Jaara nekkoon na koo xam ne ku ragaloon yàlla la ku bàyyi woon yàlla xel ku bari woon ay julli ak ay sarax ak ay woor ak njabootam daf leen doon yar ci di leen nettali lu bari histoire mag mag ñi baax ñi fi jàlloon mooy yonantu yi ak nitu yàlla yi nettali googu mu daan nettali ay doomam histoire yooyu mu leen daan nettali te fekkoon boobu ñoom ñoo ngi nekk ay tuttànk taxoon na itam ku tedd ki xaadim rasul daan ci bàyyi xel bu baax ku tedd ki xaadim rasul nag dafa teel am xel mu set ak xel mu la ba tax na soxna jaara bu leen daan nettalil day jàpp histoire yooyu jàpp gu wér day def ay jeexital ci biir xelam mam soxna jaara daan na wax lu bari naan nit ñu baax ñi de bu guddi jotee bu ñëpp di nelaw ñoom dañuy ñëw di taxaw ngir jaamu sunu borom wax jooju nag bi ko ko tedd ki xaadim rasul déggee fekkoon ne boobu sax ak taxawam sax dëgërugul teewul danaan bàyyi ba guddi ba ñëpp tëdd mu ñëw taxaw ci diggu ëtt bi ngir di jëm a toppandoor ñi nga xam ne ñuy nitu yàlla yooyu maam jaara di wax mu nekkoon koo xam ne itam ku mënoon muñ la waaye koo xam ne àddunam gépp daf koo jaayoon jëndee ko ëllëg yomal xiyaam mu nekkoon koo xam ne saa bu nekk dafay xalaat boromam di ko sóoraale ci ay jëfam ak ay waxam moom soxna jaaratullaay ak dundam nak lu gatt la ndax fanweeri at la dundu dundu gi jeex waye dafa melni ko xamne dafa dundu junne at ndax ay jëf yu sel ak ay jëf yu reey Cheikhul Khadim nak bi muy ci loxo way juram soxna jaara dan na deglu lu bari lu soxna jaar di netali ci histoire mag ñu bax ni comme ni ma ko waxe legi dan na itam di jema top ndor kep ko xamne degg na ñe ku bax la won ab yonentu la won wala nitu yalla la won muy ndor ay jëfam ci jamono bo xamne mo ngi ci loxoy juram mom Cheikhul Khadim musulatu muranke naka jëkk ci loxo loxoy ñaari wajuram la nekkoon muy diggante Mamor Mamor Anta Sali ak diggante Soxna Jaara nekkoon na itam koo xam ne ku yéeme woon la ci ak tu tànkam ndax lépp loo xam ne xale yi tollu ci tarantal dañ ko daan def moom yàlla def na mus ko woon def daawul nekk koo xam ne daf daan jooy jooy yu bëri daawul nekk koo xam ne itam daf daan yëngatu yëngatu yu bëri dafa nekkoon koo xam ne dafa daloon ba tax na ñoom yéemoon na leen loolu ndax melokaanam ak melokaanu doomu aadama yi wute woon na lool moom Cheikhul Khadim benn soxna soo xam ne daf ko daan yor lu bari wax nañ ne moom moo nettali ne Cheikhul Khadim kenn mësu koo fob wala nga boot ko di jaar ci bërëb boo xam ne dañ fay mooy yàlla ndax boo ko yoree jaar fa dana wéqu di baj baji ba mujj gi da ngay wàññeeku ndax da xam ne kii ma fob nii de wala kii ma yor nii de bëggut ma jaar fii nga xam ne fi laay jaar bépp bërëb boo xam ne dañ fay naanee sàngara wala ñu fay jëwee wala ñu fay defee loo xam ne neexut yàlla daawul nangu ko ko fab jaar ko jaar fa ba tax na sax ñoom yaakaaroon nañ ni moom nekkul mbindeef maanaam nekkuloon doomu aadama ndax melukaanam dafa wute woon loolu ak melokaan doomu aadama yi nee nañ xiif du ko tax a jooy maritam du ko tax a jooy dafa nekkoon koo xam ne dafa ne woon tekk sonalul kenn ci dara ci ndawam ñoom dañoo yéemu woon ci moom loolu te it nañ ba dañoo mujjoon tiit ci moom wax nañ ne bi mu feree am soow daawul nangoo toog ci lalu waajuram soxna jaara jamono bu da fay wacce lal bi ñew tok ci sijaada bi melni ko xamne xam ne dafa xam limi def tok ci sijaada kay bi nga xamne jamono bu nek buñ ko yegale ci lal bi fay wacce ñew tok ci sijaada bi nga xamne fa lañuy ñuy jaamu yàlla taqu sijaada bi ba lolu yemon na way juram soxna jaara waye nak bimu dalay jang dañu gis ni mu farlo won ci ñang mi jamono bu nek du tàggalikook àlliwam fu mu tollu mo ngi jang bu xalé yi de noppalu wala ñu yëngatu wala ñu ciow moom day beru ci ben ruq di jang jang mi yitteel ko lolu ci la nga xamee ne nag kii wér na maanaam nekkul koo xam ne dafa tàqali ko sagoom ànd naag sagoom amaana yàlla moo ko bindee nii mu am melokaan boo xam ne melokaan bu yéeme la loolu nag taxoon na lépp loo xam ne ay waajuram ak ñi nga xam ne ñoo ko yoroon tiitoon nañ ci moom mujj nañ koo soppi def ko rafet njortu ak xalaat bu rafet moom itam nekkoon na koo xam ne ku yéemu woon la moom Cheikhul Khadim xam bariwul woon ay jëfam itam lépp lu mu jëf da gis ne ci xalaat bu rafet la ko teg ak it jëflante bu rafet lii gaar xale itam su ko woon gaar ndax daawul woon xuloo daawul coow fépp fu ñuy waxee wax ju bëri dafay beru wéet nekk foo xam ne moom rek moo fay nekk lépp loo xam ne lu baax la lu neex yàlla la mu koy def waaye lépp loo xam ne lu bon la fu mu déggee ñu defee ko fa sax nangoo jaarati yor na melokaan boo xam ne melokaan bu yéemoon la waaye bu yéemoon ay wayjuram yi nga xam ne ñoo ko yaroon ginnaaw bu mu feree nag ci la ko wayjuram Maam Mor Anta Sali yóbbu ko ci daaree maamam ju ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe ngir mu jàng fa alquran wayjuram moko dalal jang waya mama moko jangal jàngal ku ñu wax tafsir mbake ndumbe di nijaayu soxna jaara ginaaw bi la dem fofu di fa la nga xamne moy alquran jamono bobu nak fekkon na wayjuram mom mi nga xamne moy mamour Mamor daldi Sali daal mbake Bawal dem dekk bu ñuy wax Nja daldi fay nek jamono bi nekké Nja nak bobu ku tedd ci Cheikhul Khadim mo ngi ci mamam di jang alquran mamam joju nak mo ngi tuddoon tafsir mbake Ndumbe serigne Basiru mbake wax na ne sëriñ Tuubaa xaadim rasul moo ko nettali ne ko maamam jooju di Tafsir Mbàkke Ndumbe ku nit ñi amoon ci moom yaakaar la ndax tamit jëf ju rafet la doon jëf ak ragal yàlla gu mat sëkk ci dundam bi mu génnee àdduna itam fekkoon na ne muy bind ab kaamil kaamil bi nag bi mu koy bind daf ko tàmbali ci xaaj kaw ak xaaj suuf maanaam su bindee benn paas bi ba muy wow la fait que muy wow mu jëlaat beneen paas bi di ko bind nga xam ne noppalu woon benn yoon daf bind kaamil bi kaamil bi laataa muy àgg nag ci la faatoo di génn àdduna bi muy génn àdduna nag xool nañ kaamil bi gis na benn xaaj bi moo ngi yemoon fi suñu borom di wax naan wa amal lazina bi yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha xaalidoon beneen xaaj bi itam moo ngi yem fi suñu borom di waxee asaabul jannati yawma izin xayrul mustaqarra wa ahsanu maqila sadaqa allahu azim yàlla na ko sunu borom dëggal ak gàng ci moom te jeggal ko dolli ko yërmande ci barke dongam boobu mu doon jàngal muy ku tedd ki xaadim rasul bàyyi Cheikh Mahamadul Moustapha Mbacké borom Daaru Xuddoos